merci ces deux questions dinaa essayer répondre ci la première question mooy. comment faire pour vendre la destination Sénégal. ça c'est le rôle moteur de l'ASPT qui est l'agence nationale de la promotion touristique mais vendre la destination Sénégal c'est très facile parce que il faut réouvrir les bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs xam nga tey boo xoolee le Sénégal tey c'est un pays stable connu par sa démocratie et ces institutions fortes. mais nag boo xoolee récemment maanaam les dernières manifestations yi nga xam ne moo fi am. c'est-à-dire mais loolu mënul am 2021 2023 donc impacté na un peu sur le secteur. ak visage bi nga xam ne Sénégal loolu mënul ñàkk la France c'est un pays connu par sa démocratie. Mm -hmm. te chaque jour ay manifestation ay toj ak yooyu am fii. démocratie bu nekk foofu ak fii bokkul. en fait bon après tu vas me dire pourquoi. laisse-moi waaw <laughs> d'accord. il pourtant il y xëy na xëy na xëy na hmm. nit ñi dañuy relayer li nga xam ne moom lañ bëgg a relayer rek. c'est que fii fii fii amuñu système de filtre rek mais il y a des morts partout. dans hmm. chaque manifestation il y des morts en général. mën na nekk. allez-y par rapport à la question de Amadou. maintenant comme je disais Amadou il faut réouvrir les bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs xam nga tey dama gis ne la euh, la France les Français c'est les plus grands voyageurs dans la France mm. te boo xoolee tey le Maroc par exemple mën nañ ko jël comme un pays référence de référence le Maroc xoolal tey li ñuy jaay ci tourisme le Maroc aujourd'hui ils ont ils rendent plus de de dix-huit millions de tourisme par an. le Sénégal n'arrive même pas à 1 million 500 de tourisme par an. Quand on me parle de 3 millions, c'est archi faux. Mm-hmm. Moi, je connais bien les chiffres. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends? boo xoolee la Côte d'Ivoire presque ñu ngi dugal ay 12 millions de touristes par an. les îles du Cap-Vert fii ay 7 millions la Gambie mii sax moo la ëpp tey. Sénégal minimum ñaata lay dugal. 1 million 500 ba pare ñu ne Sénégal dafa dafa stable am na benn stabilité. waaw mais c'est quoi le c'est-à-dire il faut il faut il faut savoir comment vendre une destination. c'est mënu mënuloo jël tey le Sénégal nga ubbi trois bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs l'OMT se trouve en Espagne on n'a même pas de bureau de promotion touristique. en Espagne l'organisation mondiale du tourisme se trouve en Espagne amuñu fa bureau de promotion touristique fan lañ ko am France lañ ko am euh, Amérique ak fan Italie nan lañu doyee foofu Amérique ban Amérique kan moo mos a dox ci yéen gis benn américain jóge fële ñëw fii tey di def tourisme au Sénégal ça c'est pour aller manger de l'argent là-bas ça nous sert à rien donc ouvrir euh, euh, benn bureau de promotion touristique aux États-Unis ne nous sert cette destination là c'est une destination morose parce que amaluñu benn njariñ donc là il faut que l'État revoie sa politique quand même <laughs> par rapport à ça Alors, donc pour rendre quand même la destination un peu beaucoup plus attractive c'est pas comme ça qu'il faut travailler